mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci mbiri coronavirus ak euh, événement religieux yi nga xamante ni nar na am ci weer yi nu jëm yu ci mel ni màggalu Tuuba ak gàmmu ci waawan ginnaaw rek bi nga xamante ni ki fi nekkoon ministre de l'enseignement supérieur di Mary Teuw Niane yëkkati rek ay kaddu yoo xamante ni ñu bëri ci tijaan yi ak murid yi ñaawlu nañ ko maanaam lu jëm ci annulation màggalu Tuuba ak gàmmu ci waawan keneen ku yëkkati waat ay kaddu jëmale ci wàllu woowe di ki fi nekk nekkoon ministre di Moustapha Diakhaté bokkoon ca parti bi di alliance pour la république moom njiital manko taxawu sunu APR nag moom la mu xam leen moo di cas communautaire yi nga xamante ni gis nañ ko fii bis bu nu amalee màggali Tuuba ak gàmmu Tiwaawan dafay gën a bëri maanaam day gën a law rek wax ji nag mu ngi ko daal di bind rek ci page Facebook am nee na nag li mu seetlu ci ñaari fan rek am nañ ci lu toll ci deux cent vingt quatre infection yoo xamante ni ay cas communautaire lañ maanaam nit yoo xamante ni am nañ doomu jàngoro coronavirus te xamuñu fuñ ko jëlee te nee na loolee la ko waral du leen lu dul tabaski ji nga xamante ni joge nañ ko te nit yu bëri daal di jóge ci région yi dem ci yeneen région fu ci mel ni Ndakaaru xamante ni fi la jàngoro coronavirus bi ëppee ñu bëri fi lañ dal di jóge dem tabaski ji ci seeni dëkk loole nag la muy moo di yoon yi nga ni état bu Sénégal tëjoon na ko te mujj ko dal di tijji rek moo waral li ni mel kon nag nee na na état bi dal di bàyyi jeunes yi nga xamante ni ñoom lay dut baaraamu tuuma na ñooy yokku transmission coronavirus bi Moustapha Diakhaté nag mu ngi yëkkati waxam yi ci ab contexte boo xamante ni coow li bëri na loolu ginnaaw bi nga xamante ni ki fi nekkoon ministre de l'enseignement di Mary Teuw Niane te jamono ji mu nekk PCA bu Petroting Holding yëkkati na ay kaddu doon sàkk ci ñu daal di annulé lu Touba ak gàmm ci ginnaaw ba rek ci la ko waa Touba daal di tontu jaarale ko ci seen cellule de communication te Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma jiite ko